sëriñ Nasir Lo sëriñ Nasir ñu gën koo xam ci sëriñ Siré Lo mi ngi gane àdduna ci atum 1854 ci dëkkub maamam bu ñuy wax sànnoosi sànnoosi gi ku ñuy wax sëriñ mataar xujja daraame moo ko sanc di maamam suriwul dara nag dëkkub sëriñ siréloo bii di sànnoosi sëriñ nasirloo ñu gën koo xam ci sëriñ siréloo doomu soxna baaba ñaŋ la ñu gën koo xam ci soxna ñaŋ ndax waajuram moo tudd baaba waajuram wu góor sëriñ mayib siréloo la sëriñ mayib siréloo mi doomu sëriñ siré buuba la sëriñ siré buuba mi doomu sëriñ Balla Xujja Daraame la sëriñ Balla Xujja Daraame nii nag doomu sëriñ Aale Demba la sëriñ Siréloo am na kenn ko mu bokkal soxna ñaŋ wala soxna baaba ñaŋ ñi ñu koy wax soxna Faati Loo benn bu góor la ci waajuram jigéen soxna Faati Loo niitim benn bu jigéen la ci waajuram jigéen wi sëriñ Siréloo soxna Faati Loo rek la bokkal soxna ñaŋ baaba mi sëriñ Nasiir ñu gën koo xam ci sëriñ Siréloo bi matee dal lii de alxuraanul karim ci ëttu waajuram bii la dalee alxuraanul karim sëriñ mayib siréloo ba géeju fa ci wàllu xam-xam ndax ndaamkat ëttub daara la ginnaaw bu mokkalee xam-xam ak lii di alxuraanul karim mu des na ci ëttu waajuram boobu di liggéey ak topp ci ginnaawam waajuram wi nag di ko tarbiyewu ba ni sëriñ tuuba seexul xaddiim woote ci atum 1883 sëriñ siréloo tànxam lu wut woote ba daa di wuy ji ngir nag nekkub murite kon ñeen fukk fukki taalibe yi njëkk a jaayante ci yoon wi sëriñ Siré Lo ma nga ca waaye ma wax leen li indi nag sëriñ Siré Lo ci ëttu ku baax ki sëriñ Tuuba Seexul Xaddim xam ngeen ne sëriñ Siré Lo mook Seexul Xaddim menn at rek lañ magante ndax 1854 la gane lii di àdduna mook Seexul Xaddim nag amoon nañ a xam ne booba Mamor Anta Sali mi ngi fi ba Seexul Xaddim daana ñëw ay yoon ci dëkk boobu di na kër Mataar Xujja Daraame di seet si sëriñ Siré sëriñ Siré dem mbàkke kajoor ay yoon di seeti ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim kon kóllëre ñoom ñaar amoon nañ ko laata dara di xew te olof njaay day wax baat bu am solo wax ma ki ngay àndal ma wax la ki nga doon kon moo tax bi sëriñ tuuba seexul xaddiim woote lii di yoonu murit sëriñ siréloo amul lu muy na teble ndax kat ñoom ñaar ay wóllëre lañu woon te dara xewagul kon nag bu kenn ki wootee ka ca des du man lu dul topp kon lii mooy indi sëriñ siréloo ci mu wuysee ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ci woote bi mu woote delluwaatul nag fenn dafa toog ak seexul xaddiim ci mbàkke kajoor ba ni fa sëriñ tubaa seexul xaddiim bàyyi ko ñëwaat mbàkke bawal mu ànd ak moom daaru salaam ànd na moom dëkk bu sell bii di tuubaa ànd na fa ak moom ginnaaw tuubaa laata seexul xaddiim di dem mbàkke baari jolof sëriñ siré loo del siwaat na nag ci dëkkub maamam bii mu cosaanoo di siré kër mataar xujja daraame nekk fa ginnaaw bi jóge Bayeri Jolof am fa takk-takk ak kii di maam Abdoulou tubaab bi dugg fa wala tubaab bi dugg ci ñu yóbbu ko ci réew mi di Gabon Seexul Xadiim mi ngi déparé ci port bu Ndakaaru ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre ci atum 1895 ila Conakry après Conakry mu jaar fi mu jaar ba dem ci réew mi di Gabon Gabon googu nekk na fa ba ci le 20 septembre 1902 tubaab bi dugal ko ci benn batom napp mu fa séenee dil si wànn ci réew mi di Sénégal naaw Sénégal na ci ndakaaru ci fukki fan ak benn ci mois de novembre le 17 novembre ndar géej la ko fekk le 2 décembre la ñëw ci dëkk bii di Louga loo le 5 décembre la fanaan ci dëkk bi di bari jàmm siise le 6 décembre nag la ñëw ci dëkk bii di sànnoosi tombeel ni ab gaawu juróom benn fan ci weeru décembre ci atum 1902 dëppoo muy gaawu juróomi fan ci weeru koor ci atum 1320 ci gàddaay gi mu ñëw nag ci dëkku taalibeem ba xaritam ba wëlla réew wa sëriñ Siré Lo ka waajuram wu tudde sëriñ Nasir Lo yépp daa ko wooye boroom Sanusi di sëriñ Siré Lo Sànna bi sëriñ Tuuba Seexul Xaddiim demee ci géej gi ci atum 1895 sëriñ Siré Lo daa delsi waatoon ci dëkkub cosaanam di dëkkub maamam bu ñuy wax Sanusi kër Matar Daraame ndax maamam jooju tuddoon Matar Daraame moo sañtoon dëkk boobu di Sanusi kon foofu la nekkoon bi Seexul Xaddiim xaddim di dem ci géej gi foofu itam la toog ba ni seexul xaddim ñibbisee ci géej gi waaye laata seexul xaddim di ñibbisi ci géej gi sëriñ Siré Lo Sanusi ànd na lu tolloo kilomètre diggante ñaari dëkk yi ngir mu sanc fa beneen dëkk bu ñuy wax si kër sëriñ Siré loo kon foofu la ko seexul xaddim fekk ci juróom benn fan ci mois de décembre ci atum 1902 tombeeg muy ab gaawu juróomi fan ci weeru koor gi ci atum 1320 ci gàddaay gi seexul xaddim jóge bari Cissé wax ne ilaa sànnoo si kër sëriñ Siré Lo wala kër sëriñ Nasir Lo ndax noonu la ko seexul xaddiim daa woowe bisu keroog bi seexul xaddiim egsee ci dëkk boobu di sànnoo si kër sëriñ sireloo am na menn mag mu ko dogale keroog ca pénc ma di ko wax ne Mbàkke Bàlla kaay dal ak man wala kaay dal fii seexul xaddiim di ko laaj lu waral wax jooju mu koy wax ne kër Siré de dafa ràpp seexul xaddiim di tontu ma di ko wax ne kër Nasir de bu ràppee xol ba sàkkitut seexul xaddim daan na ana kër siré fu mu toll wala kër nasir lo fu mu toll menn mag mu siiw ci dëkk boobu di sànnoosi ca jamono jooju mbërum làmb la woon ku mag ñi xamoon la ak njabootam bënn gëni ñi ngi foofu ci sànnoosi moo daw dem ci kër sëriñ siré di ko wax na am na kenn ku war aw fas mbooloo mu bari topp ci ginnaawam mi ngi ci pénc mi yow lay laaj bi sëriñ nasir loo génnee lay ku baax ki lii di sëriñ tuuba seexul xaddiim seexul xaddiim ne ko nasir ana fan laay dal bis boobu la ñuy màggal ci sànnoosi wala wax jooju la ñuy màggal ci sànnoosi kon lii la seexul xaddiim wax ak moom gaaw juróomi fan ci weeru koor ci atum 1320 dëppook samedi 6 décembre 1902 dëkk boobu di sànnoosi fa la sëriñ tuuba seexul xaddiim doge lii di juróomi fani koor gi bañ kor bam am lii di ñetti fan mu doog faa jóge seexul xaddiim nañ fa jóge bisub ajjuma ñetti fan ci mois de janvier ci atum 1903 vendredi 3 janvier 1903 ajjuma jooje itam moo dëpp woon ak mooy ñetti fan ci weeru korite ci atum 1320 ci gàddaay gi ajjuma ñetti fan ci weeru korite ci atum 1320 ci gàddaay gi keroog bi mu jógee foofu ci ajjuma jooju dafa yóbbaale kii di Serigne Siré di xamal Serigne Siré Lo wutal kaneen ku nekk ci dëkk bi ndax kat damay ànd ak yow ci liggéey bi ndax doon naa sàkku ci sama boroom mu may ma ñeneen ñu mel ne yow waaye suñ boroom xamal na ma ne kenn rek la ma mën a jox ku mel ne yow keroog la sëriñ Siré Lo jël ku ñuy wax sëriñ Majoor Njaay dénku ko dëkk boobu di Sànnoosi ba fii may waxeeg yéen njabootug sëriñ Moor Joor Njaay mi ñoo yore kër ga ñoo koy sàmm ñoo koy toppatoo ci misaal li ñu tudde bëkk néeg ñoom la ndax kat Seexul Xaddiim ba waxee sëriñ Siré Lo dëkk ba sëriñ Majoor Njaay nii la ko dénkoon loola nag la njaboot gi sàmm ba nëgëni sëriñ sëriñ loo ànd nag seexul xaddiim fépp fu seexul xaddiim jaar ba nu mu egsee ci dëkk bu sell bii di daaru salaam gane si rakkam ja maam Cheikh Anta Mbàkke ginnaaw daaru salaam daaru marnaan ginnaaw daaru marnaan amaat na fa takk-takk ak kii di mbaaxaan tubaab bi dugg ci ñuy bu war ko ci réew mi di gànnaar ci résidence surveillée gànnaar googu sëriñ sëriñ loo dem na fa keroog bi muy dem gànnaar ànd ak sëriñ Tuubaa seexul xaddiim ginnaaw bu mu nekkee gànnaar ñenn ci taalibe yu mag yi ko yaakaaroon fekk si woon nañ ko ci gànnaar googu nekk faak moom ñu ràññee woon ci ku ñuy wax sëriñ Moodu Njaay Bamba sëriñ Majoor Njaay mi nga xam ne ni keroog bi ko seexul xadim ne wutal koo dénk Sanosi moom la fa bàyyi woon ak ku ñuy wax sëriñ Daawuda Siise kon ñett ñi moom bokkoon nañ ci ñi nekkoon gànnaar ak sëriñ Nasir Lo ñu gën koo xam ci sëriñ Siré Lo ak ñeneen ak ñeneen nag ginnaaw gànnaar ci yéen jolof loo dem na fa nekkoon na fa ak seexul xaddim ba ci doomam ji mu duppee waajuram wi di soxna ñang loo ñu gën koo xam ci soxna ñang jolof foofu la ganee àdduna ginnaaw ca yéen jolof ci atum 1912 ànd na ak seexul xaddim ñëw ci dëkk bu sell bii di njaareem foofu sax la nekk ba nun génnee àdduna ci atum 1920 jógewu fa njaareem googu sëriñ tubaa seexul xaddim wutaloon nag fa kër ci fitoonloo kër gu mag kër gi sax foofu sax la génnee àdduna ci atum 1920 kër ga rakk rakkam ji di sëriñ daam isa lañ ko jagleel ci kër gu mag ci njaareem ku seexul xaddiim doyloo woon moom sëriñ Nasir Lo ñaare bu seexul xaddiim daa watu sax daa na ko wat ndax doyloo gu ko seexul xaddiim doyloo woon lii di caabi kër gi mën nañoo ne sëriñ Siré moo nekkoon bëkk néeg bu mag bi ñaare caabi yi moom moo ko daa joxe lii di yenn gani araab yi wala gani naar yi daa seet ci sëriñ Tuubaa seexul xaddiim lu ci ëpp itam ci discours yi seexul xaddiim da daa def naar yooyu sëriñ siréloo mii moo ko daa def lii di jàkka ji itam moom la ko seexul xaddiim dénkoon ci njaareem loolu lépp sax tax na doomu nijaayu seexul xaddiim bii di sëriñ mbàkke buso tagg na sëriñ siréloo ci jëf jooju ak kóolute googu seexul xaddiim amoon ci moom ba def ko ci ay way ñu teewlu way yi ko sëriñ mbàkke buso def ngir lii ma leen wax ne moom la ko seexul xaddiim dénkoon ci njaareem wala moom la ko seexul xaddiim féetale xadim bi di sëriñ mbàkke bu sa def na ci way ñu teewlu ko asdit bi awjaa'i sudur min mawti axyaari sudur mawtun yaumul xalxala yabgi wala yasru duyur mawtun sariun zunna min ixda alaamati duzur mawtin kama qad zakaruhu fil mutaqaddimaati li nafqi suur ruknun tahaddama min binaa sheyqi aw falmun kabir faqdu sirri siril huda wa diini taanun fi nuxur man lil masaajidi wa sufuufi wa lisiqaayati fi lfutuur walbaabi fi fatxin wa fi galxin wa israajin muniir fiihin wa lil azkaari fi iraadiha adadun kasir aw man yuballiguna kalaama sheyqi bisawti aljahir arabiyatan in shita aw olofiyatan luxatal kajoor aw man yu marridu zaddana aw man yugassilu saa subuur aw man liman aw man lima addit wala taxsha alfujur bal kaana xaqan uddatan lilcheikhi fi julli al umuur fa jazaahu xayran naamiyan yurdihi fi tilka alqusur rabbun karimun waasiun wa ala machiatihi qadir yaa rabbi akrim nuslahu wa ajirhu min fitani alqubur summa anfi anhu rawatan min munkarin aw min nakir alxaqu fi asxaabina al ahbaabi bilhaadi albachir salla alayhi musallima rabbul wara amadu duhur doyloo googu ko seexul xaddiim doyloo woon ba tax sëriñ mbàkke buso def ci moom ay way mag ñu bari daanañ jébbalu ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim seexul xaddiim ne leen dem leen ci sëriñ siréloo mu jàngal leen lii di ak taalibe firnde bi rek mooy sëriñ mataar bi sëriñ tëlloo seexul xaddim mas na ko wax demal ci sëriñ siréloo mu jàngal la lii di ak taalibe boole ko nag bindub lettre jox ko na ko soo demee nga yit ko sëriñ siréloo di ko wax ne maa ko ko bind lettre baa ngi nii ñu teewlu ko bismillahi arrahmani arrahim li yaalama man waqafa ala hada arrafni inni azintu لمختار حامل هذا الكتاب عصمه الله تعالى من موجبات الضر والعتاب بالمقص عند أخيه الناصر المدعوت بلوغ مدة يتهيأ بها والله تعالى أسأل أن يعينه على كل ما توجه إليه من الخيور وليكن الناصر مجتهدا في أموره والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kon kóolute giñ leen doon wax moom Serigne Siré Lo wala Serigne Nasir Lo ndax noonu la ko Seexul Xadiim daa wooye amoon na ko ci ku baax ki lii di kóllëre itam amoon na ko ci mag ñu baree bari ñu toppoon Serigne Touba Seexul Xadiim ñu ràññee ci Serigne Mbacke Bousso Serigne Hamar Samb Serigne Ahmadou Ndumbe Mbacke Cheikh cheikh masamba mbàkke mi caatu mamor anta sali mbàkke sëriñ mataax bintaloo sëriñ xamsatu jaxate sëriñ moodu absa faal bu njiig faalitim ay wóllëre lañ woon cheikh mohammadu lamin baara mbàkke ibnu sëriñ tuba seexul xaddim doomam ji di sëriñ moodu baara mbàkke ibnu cheikh mohammadu lamin baara mbàkke foofu sax la ganee àdduna ci sànnuusi maam cheikh ibrahima faal lamp baabul muridiina sëriñ jéeri waa daan sugu sëñ jéeri waa Touba daan sugu moomu sax laata muy génn àdduna dénk na njabootam di leen wax ne sëriñ paate joor mar ak kii di sëriñ Nasir loo ñu ngi may xëccoo ngir kenn ku ne ne naa ñëw dal moom wala naa ñëw tëdd ci wetam ngir di ko wéttili waaye nag sëriñ paate joor mar lay nekkal ci Touba kon kóllëre moom amoon nañ ko te sàmm nañ ko ba biñ làqoo sax mag ñi doon nañ ko laajante sëriñ Modou Gueye Jamooñ sëriñ Mouhamadou Lamine Assane Gaye sëriñ Masamba Kandi Bousso sëriñ Masamba Kandi Bousso mi sax bi sëriñ Nasir Lo génnee lii di àdduna doomam ji ko mujjee wuutu di sëriñ Basiiru Lo moom sëriñ Nasir Lo waajuram wu jigéen Seexul Xaddim sëriñ Masamba Kandi Bousso mi la ko joxoon ngir mu denc ko Cheikh isaa Dieng borom Njenneeg Lagan sëriñ Ibrahima Sarr Njaañ sëriñ Mbay Jaxate maam Cheikh Anta Mbàkke maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ci dëkk boobu di Daaru Muxti sax mayoon na fa suuf wala jagleeloon na fa suuf kii di sëriñ Nasir Lo suuf si sax sànna lañ koy woowe ci daaru muxti ba ci xalifab sëriñ Siré bii ko njëkk a wuutu foofu sax lañ ko denc sëriñ moor Birane gay moom sax keroog bi mu génnee lii di àdduna sëriñ Siré Lo la seexul xaddim yónni ngir mu dem taxawu ko wax ko ca nag wax ju am solo ak ñeneen ak ñeneen ñu takku ci seexi sëriñ Touba seexul xaddim yi sëriñ Nasir Lo ñu gën koo xam ci sëriñ Siré Lo ndax am na ñu koy wooye sëriñ sànn am na turandoom yi ñuy wooye nasiir am na ay turandoom yi ñuy wooye siré dëkk bii di sànnoosi am na lu takkoo takk lu mu yor ci lii di taarixu yoonu murit ba tax na jar na murit bu ne mu solu dàllam dem seeti dëkk bii di sànnoosi ngir barkeelu ci jëf ya fa am ndax dëkk boobu di sànnoosi fa la sëriñ Tuubaa nekk ci juróom benn fan ci weeru décembre ci atum 1902 ba ñetti fan ci mois de janvier ci atum 1903 kon seexul xaddiim def na foofu lu tolloog weer wu manki benn fan ci dëkk boobu di Sanusi ñaareelu ponk bi mooy sët bi seexul xaddiim njëkk a gis ci góor bu sant Mbàkke foofu itam la ganee àdduna ñu koy wax sëriñ Moodu Baara Mbàkke ibnu Cheikh Mamadou Lamine Baara Mbàkke ñetteel bi mooy sëriñ Baara Mbàkke ibnu sëriñ Tuubaa seexul xaddiim amoon na fa kër te nekkoon na fa ñeenteel bi ndox mi sëriñ Tuubaa seexul xaddiim daa jàppe ci diirub li mu ci Sanusi ndaa am na lu ca des ma nga fa ku dem ñu war la ko juróomeel bi daqaar gi seexul xaddiim daa doge wala doomu daqaar yi mu daa doge ba nëgëni am na lu mu jur ndax daqaar ga meññi na ma nga fa ba sa tub sëriñ tuubaa bii di sëriñ mbàkki soxna loo laajoon na njabootu sëriñ sànn gi ñu jox ko ci lenn ci doomi daqaar yooyu mu jikko ci dëkk bu sell bële di tàyyif juróom benneel bi mooy seexul xaddiim nekk na ci dëkk boobu di sanuusi woora na fa itam lii di weeru koor bi ci des itim jàkka jëm daa jullee waxtu juróom ak lii di bërëb bam daa naafe weeru koor wi ma nga fa bërëb ba sax wala lii di jumaa ja sëriñ tuba seex wu mbàkke tabax na ko jumaa ngir barkeelu ci bi ci des itim mooy julli korite gi seexul xaddim njëkk a def ginnaaw tukki bi foofu la ko amale ci dëkk boobu di si xeer wi seexul xaddim daa jàppe ma nga foofu itim ci si xeer wa nag lu am solo moo ca nekk solo tàbbi na ca ndax seexul xat xaddim mas na wax sëriñ siréloo di ko xamal ne xeer wii de keroog bi ñuy tabax lii di kaaba gi muy tabax bu njëkk ba laataa abraha di ko toj malaaka yi xeer wi daa wat doon ci seeni loxo te foofu la daanu ci si xeer wa amaatu ci réew mi te sëriñ siréloo ak ña nekk ca dëkk ba ba nëgën xamuñu xeer wa lu ko fa def xeer wa ku dem ñu wan la ko lu ëpp itam ci bagage yi seexul xaddim jëlee ci géej gi ginnaaw bu ñibbisee ab tukki itam li ci bari mi ci dëkk boobu di sànnoosi kon magasin seexul xaddin mi ci dëkk boobu di sànnoosi dëkk boobu di sànnoosi itam mas na dajale mbooleem kilifa yi nekk ci yoon murit wi ndax korite ga fa seexul xaddim koree murit yépp fekkoon nañ ko fa dëkk boobu di sànnoosi itam seexul xaddim neewoon na sëriñ siréloo yàkku la yaakaar wala yàkku dëkk sànnoosi yow man xiyaam danaa leen cër dëkk boobu di sànnu siitim bari na mag ñi ñuy coow ci yoonu murit foofu la ñu jébbuloo ñu mën cee tànn rek Cheikh Ibrahima Diop almashari ndax bi mu amee borub juróomi téeméer bi foofu la dajeeg seexul xaddiim foofa itim la jaayanteeg seexul xaddiim nekku murit kon ponk yi rek benn bu ne jar na dem sànnu si sëriñ Siré Lo nekkoon na nitu kiimaan nekkoon na itim ku seexul xaddiim bàyyi woon xel ndax dafa am bis ci njaareem ginnaaw bu sëriñ Nasir Lo yàqoob bam am lii di ay ati at doomam ji di soxna mareema loo damoon ziyaare ji ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ci njaareem seexul xaddiim di ko wax ne xalaas sëriñ nasiir loo de léegi la toogoon fii ci sama wet xanaa daa dégg sa baat bi jóg dem lii moom soxna mareema loo daana ko nettali lu bare bare bari soxna mareema loo mii sax bi mu làqoo yàggul am na bis ci njaareem sëriñ tubaa seexul xaddiim waxoon sëriñ siréloo sànnoo si di ko xamal ne Njaay mi na àdduna faneen fu dul Tuuba nga xëcc ko mu ñëw ci dëkk bu sell bi di Tuuba lu mu sori sori nga indi ko ci dëkk bu sell bi di Tuuba wax ji Sëriñ Tuuba Seexul Xaddim mi ko waxoon Sëriñ Siré Lo ci njaareem ngir dëggal wax ji na ku dem ci waxtaani Sëriñ Abdullahi Jaxate ci waxtaan yim def jagleel ko jëmm ju baax ji di Sëriñ Tuuba Seexul Xaddim ma ngi fay nettali xissa bii ci waxtaan yim def ku gis kaseti Sëriñ Abdullahi Jaxate yi dang fa fekk wax ji la ci am na bis cheikh Modou Moustapha Mbacke ak kii seex cheikh Mamadou Fadal Mbacke Serigne Touba Cheikhul Khadim woowoon leen bis ci njaareem di leen wax ni dama bëgg ngeen wër lii de frais yi te ngeen njëkkee nag ci seen bay na Lo bi ñu ñëwee sànnu si fek fa kii di Serigne Siré Lo di ko wax ne ko baax ki Serigne Touba Cheikhul Khadim moo waxoon ne ni ñëw ci yow nga dénkuñu Serigne Siré Lo ma ngi di wax ne yow cheikh Modou Moustapha yaa kii di cheikh Mamadou Fadal Mbacke ñu ngeen nekk ay sëriñ su ngeen ko defee de lépp jag waaye bis bu ngeen nekkee buur de ñu nekk ay dag dara du baax noonee mu leen ko dénki woon biñ dikkaatee ci ko baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim wax ko ko seexul xaddim mu ngi leen cay tegal ne noonu rek la ndax kat loolu rek laa soxla woon kii di seen waajur wa sëriñ Nasir Lo wax leen ko kii di sëriñ Nasir Lo sanc na nag benn dëkk ñu tudde ko Sanosi laata seexul xaddim di dem ci géej gi sancaatul nag ab dëkk ba ñu lii di àdduna waaye amoon na ay wala lii di ay kër nag ci biir réew mi ndax ci njaareem amoon na fa kër kër googu moo amoon ci njaareem sax foofu la génne àdduna ci atum 1920 ñu fop kër ga jox ko rakam ja di sëriñ daam isa moo doon kër ga ginnaaw foofu itam ci daarul muxti maam Cerno Ibrahima Faati jagleeloon na ko fa suuf su yaatu ñu tuddee ko sànna gi ci daaru doomu sëriñ Siré Lo bi di sëriñ Muhammadu Sayid Lo foofu sax la génne àdduna foofu itam lañ ko denc taali bépp sëriñ Serigne Siré Lo bi itam di Serigne Mor Joor Caam foofu itam la génne àdduna foofu itam lañ ko denc ci sànnoo si ci daaru muxti Serigne Mor Joor Caam mi mooy waajuru Serigne Cheikh Caam mi jiite mbooleem daayirey Serigne Siré Lo yi ka Seexul Xaddim daa wooye Nasir doomu Serigne Mayib Siré ja ak kii di soxna Baaba Ñaŋ ja ñu gënoon koo xam ci Serigne Siré mu ngi génn àdduna bisub dibéer fukki fan ci weeru safar ci atum 1339 ci gàddaay gi dibeer fukki fan ci weeru safar ci atu 1339 ci gàddaay gi dëppoog muy dimanche 24 octobre 1920 dimanche 24 octobre 1920 ci dëkk boobu ko seexul xaddiim yóbbu woon mu nekkoon faa moom di njaareem ci kër gi ko seexul xaddiim wutaloon ci njaareem di kër gi ñu jox rakkam ginnaawam di sëriñ daam isa ci feebar bu ko tëral ginnaaw bi nag lañ ko yëgal ko baax ki sëriñ tuuba seexul xaddiim di ko wax ne sëriñ Nasir Lo génn na àdduna seexul xaddim moo ko taxawu jullee ko gunge ko ba ca armeer ya wax ne itam jàmbaar mi ngi nii ñu tëral ko ci armeer yi njaareem yi seexul xaddim seede lu am solo ci ginnaawam sëriñ Siré Lo ay xalifaam nag nii la tëddee ci atum 1920 ba atum 1940 ku ñuy wax sëriñ Muhammadu Sayid loo mooy ki ko wuutu ñaareelu xalifa sëriñ Nasir loo ci atum 1940 la toog xalifa ba ba ci atum 1957 ñu koy wax sëriñ Mouhamadou Chérif Lo ñetteelu xalifa sëriñ Nasir Lo ci atum 1957 ba ci atum 1981 mooy sëriñ Mouhamadou Harif Lo ci atum 1981 ba atum 1993 sëriñ Mouhamadou Raïs Lo moo toog xalifa sëriñ Nasir Lo ci atum 1993 ba atum 1994 sëriñ Basiru Lo moo toog juróomeelu xalifa sëriñ Nasir Lo ci diggante ñaari xalifa yi dafa am lu am solo lu ci xew ndax sëriñ Mouhamadou Raïs Lo bi mu toogee xalifa ci atum 1981 dafa woor rakkam jii di sëriñ Basiir Lo di ko xamal ni xilaaf ak sëriñ Nasir loo gii da ko koy jox mu wéyal ko ndax kat moom dafa am laneen lu ko seexul xaddiim di liggéey loo ci njaareem moo tax daal bu sañoon rakkam jii di sëriñ Basiir loo boole xilaafaam ak xilaafaam moom boole yor looloo waral sëriñ bari xamuñu ko ci xilaafa Serigne Nasir Lo waaye moo ko toog ci atum 1981 ba atum 1993 mu rafaatale ko rakkam ji nag mu yor ko ba 1994 lii di doomu Serigne Nasir Lo yi nag jeex takk ci kaw suuf wala doom yu góor yi jeex tàkk ci kaw suuf mu des nag lii di sët yi sët bi njëkk a wuutu maamam mooy sëriñ Nasir Lo ibnu Serigne Mohamadou ci atum ba bis juróom ñaareelu xalifa sëriñ Nasir Lo mooy sëriñ Muhammadu Sharif Lo ibnu sëriñ Basiru Lo moo fi toog 2006 ba nëgëni ñuy ñaan ci suñ boroom mu taxawu ko te yàggal ko ci njabootu sëriñ Siré gi nga xam ni moom la wuutu te ay rakkam di ko xoole sëriñ Siré Lo ci darajay bàjjanam bii di soxna Assa Waalo ak soxna Aminata Lo darajay bàjjanam biitim di soxna Nafisatu ak bàjjanam bii di soxna Moxsinatu Faatu Lo ci seen darajay waajur wa sëriñ Nasir Lo yàlla na suñ boroom yàggal xalifab sëriñ Siré bi njabootu sëriñ Siré Lo nag am na bis bu ñuy fàttaliku sëriñ Siré Lo muy juróomi fani koor gi di bis bi seexul xaddim njëkk a doge ci dëkk boobu di Sanusi at mu jot ñu koy fàttaliku màggal gi nag kii di sëriñ Siré Lo ci boppam daan na ko fàttaliku ci bu mu nekkee njaareem ak sëriñ Tuubaa seexul xaddim daana def su bis bi ñëwee mu yëg ne bisu tey bii kat bi ko seexul xaddiim newoon nasirloo ana fu may dal wala ana foo may dalal kon bis boobu seexul xaddiim waxoon sëriñ nasirloo ana fu may dal moom la njaboot gi di fàttaliku at mu jot moo dëppoo woon ak juróomi fan ci weeru koor di ab gaawu at mu jot nag moom la njaboot giy fàttaliku ba nëgëni ñuy ñaan ci dara jëy liggéeykatu seexul xaddiim ba ñu gën koo xam ci sëriñ siréloo ka seexul xaddiim nekkoon ca dëkkam ba ci lu tolloog weeru yàlla Touré Lo yàlla ko yàlla fayal te yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem te taxawu nag lii di réew mi ci darajaam ci barke alxuraanul karim akam doon liggéeyal di seexul xaddiim ci darajay doomam jii di sëriñ Mbàkke Lo amiin Mbàkke amiin